سيدنا محمد سيدنا محمد دفلني نين مغل سيدنا محمد déglul ma wax la ne bindab Mustafa mela mel bam tudd ngën ji gën ñépp yàllaaw déglul ma wax la na Mustafa melamel bam tudd ngën ji mindéef gën ñépp yàllaaw xadd kaana akmalahum xalqan wa ajmalahum خلقا وأصدقهم خولا فيلاو سيدنا محمد جيكم ينومت ملوم يا سيل تريا رفت كي مصطفى المتبع المختار يلاو بور يالا ne sàkkuloon misloom ca gaaya weyoon te dootu sàkkati misloom wóor na yàllaaw sayyiduna muhammad moom gàttul guddul xeesul ñuulul yaram war a tax cërëm yépp mat sëkk buy dox sut la yàllaaw moom daa mawul deful am njool rëyul ni fa dooxul wagul setaxul sëggul fa yàllaaw sayyiduna muhammad moom rinkul lasul noojul gangul teyeel ya sewul kaloor ya papaay yewul moo jënd yàllaaw moo jëkk ab taxawaay day kem ñenantu xasab reem juneex jaag njamal yàllaam la yàllaaw ak jaalu yàlla waak si ñu muñul ma ko dar ak tuñ yu jekk ya ak muuñaay ba ya laaw muuñaay ba day saf malax guy gaf ci xiinu marax reem jaga ceel na lampi gaasi ya laaw sayduna muhammad jëxam bay wandeelu bay safeeru ba dirin yedin ndoxum bañang maak palak baatam ga ya laaw yéenam yu sëq ya ànd ak njañ la faf di melax lexam yu ratax yaak leeraay ba yàllaaw seyduna muhammad boppam bu mbur ngulu baak noppam yu rëy ya ca sax gëtam ya muy wëlbati lamsal fa yàllaaw nuurug bakkan gane fu nay saf na taali wurus sikim bu jekk ba ak faasam ya yàllaaw diggante yaari waggam yaa xaatimam ba ñu taf ca diggu ndoddam ma muy saf tampe yàllaaw sufeem yu jekk ya ak tenxam yu yaatu ya ak dojar yu tali yaa kalooram yooya yàllaaw doxin wu jekk wa ak ndaagam la temp ma woon doxinu rammatu lay dox bir na yàllaaw sayduna muhammad waxin wu dégg wa ak baatam bu neex ba mu yor lamiñ wu gàtt wa ak tellam ga yàllaaw sayyiduna muhammad moom leebul barul dotamul nasul darul taxuloon baatam loxut sewul senjul fa yàllaaw ndigam lu jekk la ci ndigal tamaam la mu yor luppam yu jekk ya ak peeram ya yàllaaw loxoom yu jëkk ya ak waaroom yu sew ya ca sax weem yu xonq ya buñ koy lewi yàllaaw moo ne xuban ku nu yóg yeneen di xeeñ ba ëllëg day saafo anteeka jàmmanteeka yàllaaw kum raay sa bopp nga ànd ak barke foo mën a jëm kumti fli ñaanal la dootoo joote yàllaaw sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad def leen nii ni nu màggal sayyiduna muhammad wax fi ay jikkoom yoo xam ni tuut la ba tey ci ay soloom ya ca mawlit wax fa yàllaaw xadd kaana njool makka sallallahu laa ko manal alay kulla salaatin sallamallaaw yonen kersaaki tegiin la lamboo woon te dëgër te foog ta jàmbaar te lambu fula yàllaaw sayyiduna muhammad dadaa toroxlu di gaar dàllam te dig du ko jam di gaar mbalaan ya di sol yuñ daax fa yàllaaw di rat gàttam ya ànd ak sër fege bay di yewi naagam di feg baxlaam ya yàllaaw di war ca baxlaam ya ak naagam ya daana dawal di war ca baam ya di ànd ak nit ña yàllaaw yiisa mu sol mbaxanaam yiisa mu kaalaw bis yiisa mu jartu def boppub neen fa yàllaaw yoosa mu tëdd fi suuf yoosa mu tëdd ca kaw yoosa mu jekki xalam yàllaaw yàllaaw sayyiduna muhammad suy lekk day woote daawunu gis mu lekk ci bés kem yaari yoon sakkaaya teel na yàllaaw suy lekk faw ni bismillaahi door a dugal alhamdulillahi lay noppee fa yàllaaw isaa mu lekk di bokk ak Baabakar Umar usmaanu suma aliyun birna yallaaw isa useynook asan lay woowa faatimatun isa mu bokk ki soxnaam wóor yallaaw dadaa di woo lat koloñ ak diw di tus nga lu bis léeg mu tàggoo tuwal kaafuuru yallaaw soppoon ay jaaruñ jëf njong ta daana ko sol di làq njong la ca biir ci xam la yàllaaw diggante nday joor ba ak càmmooy ba lépp ci yam fu nekk daana fa sol jaaroom ba yàllaaw suy lekk jël ca tibaaroomam di tibbee di seex tibab ñamam mastalaal ci la yàllaaw kem yeti guux mbaa yenant lay naan du naan di taxaw mbaa néew na mbaa ngant lay doon bir na yàllaaw fuyte fe daana ko mos meññet ya daana ko mos reseñ sabib xaal banax batan si yàllaaw lii lépp kat ñàkk loon lum lekk fuqalewul te daana wayaf lu te am yërmande yàllaaw سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد دفلني نينو ماغل سيدنا محمد miskiinu way ñàkk ñàkk miskiin ya kenn du ko daw di raay jirim ya di togg ak jaam ya yallaaw di seeti way wopp yaa jaal way dee fuñ mën a xew giramu way dee ya faatoo foofa yallaaw du xeeb du naw te du laaj nit lum amul abadan koka sellang lu ca kaw askan wa yallaaw sayyiduna muhammad du door du mer te du mer loo du gëdde du lor du xotti saytir du yaqub der fa yallaaw sayyiduna muhammad suy mer da daa mer ci xam ni yàlla da ko mer Mustafa mer ko mook saabaam ya yàllaaw suy bég da daa bég ci mbir moo xam ni yàlla da caa bég Mustafa bég ca mook saabaam ya yàllaaw su dee gërëm day gërëm koo xam ni yàlla da ko gërëm mu xëy ko gërëm moo gaaya yàllaaw